Vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. Cela vous est offert par Ziguinchor Institut Polytechnique, ZIP. Les inscriptions sont en cours et se poursuivent. Il est encore temps d'effectuer vos démarches pour une admission dans l'une de nos filières. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www.zip-du6edu.sn ou par mail secrétariat-du6edu.sn, téléphone au

benn convergence. Mhm. mais am ben mbeur mbër bu leen boole muy Jordan. Jordan ñoom ñaar dañu daan Jordan ñoo bokk adversaire Jordan. mais nak ni ñu ko bokkee ni nga ci daané ak ni nga koy daane bokkul. lu tax sa caisse ci ay secondes la ko daan. rapidité la vitesse d'exécution exécution diire naa ko moom. loolu la wax le temps préparatoire à l'action mhm. la vitesse d'exécution une prise de décision. Mhm. xam naa ko sax. dafa ñëw rek attaquer la daan mu jeex. mu jeex waaw mais ki dafa ñëw bëri. dafa ñëw bëri bu fàtte nag bëre dafa am lu ñuy wax. Mhm. les formes de corps. les formes de corps. Formes de corps formes de lutte. Mhm. jàppal ma jàpp. Mhm. mais jàpp naa fexe yow doo jàpp. te mettre en difficulté. parce que boo ci olof nit ñi mën comprendre. mu protéger. te mettre en difficulté. savoir se dégager. donc loolu mbër bi fu mu xam ko. dëgg la man su ma la jàppee. naa fexe doo jàpp. donc mooy utilisation de levier. levier mooy loxo. wala tànk moo tax ñi bëri tout le temps ñoo ëpp efficacité ci bëri. ci bëri Eumeu Sène li mu daanee bombardier. waaw technique de lutte pure parce que les vieux la utilisé. Mhm. jàppaloo automatiquement mu par son centre de gravité day dem. Mhm. donc il perd son équilibre donc parce que Eumeu Sène dafa nekk ndaanaan ci bëri. Mhm. Balla Gaye mën na ko Modou Lo mën na mën ci bari nañu Eumeu Sène mën donc ñooñu.

Euh, Reug Reug moo ko bële. Mhm. parce que bëre na drapeau chef de l'état. waaw porté les couleurs de Dakar. Mhm. bëre na CEDEAO. porté les couleurs de l'équipe nationale. bëre na ay mbapat am pagaay. Mhm. te ténor yi defuñu ñu ko waaw. ténor bu ci def la woon dem mbapat. adhéré booy na doroxal. alay feeñal la. non foofu amul foofu bëre la. Ah. di nga nekk cent quarante kilos benn booy bu nekk quatre vingt six kilos bés la. moo tax duñ dem. waaw duñ fa dem. duñ fa dem mais dañuy gis saa kees am bërëb bu gaaw te tamit ci biir ci biir bërëb day def heure ba daan la wala mu daanu ndax di bëri rëg war nga mën def heure ci kanamam waaw xam nga l' erreur est humaine mais am na mbër yoo xam te ne dana bay heure ce qu' appelle les forces et les faiblesses waaw di nga force dara mais di nga am li ñuy wax la reprise la reprise sortie d'une prise li wax les sorties de prise xam nga maa la sax ay technique de man mosuma bëri ah. Hmm. ñu jàppale jekku la nga génn ci loolu. Hmm. wala nga juum te xam ne wax ku contre. donc contre loolu très contre <laughs> da ngay juum. rectifier rectifier daan booy la Sa Thiès mais ko juum daanu du wax. mën hmm. nga juum rectifier nga daan. ñenn ñu ne Sa Thiès bi dafa war a ñëw ànd ak tey par rapport ak ñu daan bëree.

saa boo ko rombee sama oto bu taxaw ci kan oto yi. Ah. xam nga yooyu day nekk yoo xam te ni tey su ma waxee ci moom. waaw lu xaw a kii. ñëwee ma ko bañ. waaw si su ma waxee ci moom te pourtant dama ko war a jox ay consignes. bien sûr man mbër bu jël tàngam ñëw fii laaj ma. Hmm. nga wax ko. je suis ah, moom bu ñëwoon sol ay dàllam. ñëwoon fii mbër bii ne ma kaay coche ma. ma ah. coche je suis libre. bien sûr mais je suis libre. Hmm. dañuy fay. Hmm. dama am contrat ñëw. moo ko gën a ko dàq a bëre. non bëri waaw mais mooy xam nga yaa may laaj ay question xam ne nii oh pop pop technique de lutte. mbaaru la technique. parce <laughs> que li ñuy wax technique. de lutte waaw. dafa bari ay manière ay manière waaw. da nga mën a jàpp. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm. wala da nga mën a ñàkk may mën a jàpp. mën a jàpp waaw xam nga muy technique. waaw da nga mën a am technique boo xam te ne bu ñu la jàppee nga jindi jàpp boobu. nga génn jàpp si nga génn si. liggéey ci jàpp boobu. Mm-hmm. moi, la technique de contrôle. Mm-hmm. technique de se dégager. technique de se protéger. Mm-hmm. technique de mettre en difficulté ton adversaire. Mm-hmm. xam nga loolu lépp mbër bu ko boolee. waaw ñu soriwul ko kat naanaan la. bien sûr mais tu bu ko mënul. Mm. doo naanaan doo dara. mais tey. Mm. boo nee ku ci ñoom le faire. ci gën a màndi ci bëre. waaw naan la Reug Reug moo gën a màndi ci bëre. moo gën a màndi ci bëre. màndi màndi ci bëre. waaw màndi ci waaw li mu bëre. ci li waaw mais y a un mais. Hmm. ñaar at mu ngi demul compétition. Oh, li simple bari na te moom sax nee na est-ce que bàyyiwoo ko da koo bàyyi la. merci beaucoup waaw donc. Hmm. foofu. Hmm. bàyyi na ko dem MMA. waaw est-ce que du privilégié xeex bi. waaw xeex bi waaw. xam nga moo tax analyse. waaw Ousmane yaa ngi <laughs> dafa am. waaw non analyse Ousmane daa waaru père. bon booy dama woor ba <laughs> dafa am solo parce que. Uh-huh. Euh, technicité. Uh-huh. dafa bari parce que technique de frappe sax am na. dëgg la technique de frappe. technique de frappe technique de se dégager. Uh-huh. ñu war la jàpp nga déplacer. du ñu fekk. am na mën nga dem juum nga xam ne tey mbër bi da lay àgg comme Sa Thiès bi mu defoon. contre. kon Zarko Zarko mais Zarko a été. Mm-hmm. dal na ko contre contre waaw gis nga mbët du bàyyi mu mu mooy lu lu lu mu mu un mu. Mm. un mu mooy diggante nga bu yoo xam ne boo jàppee foofu dëgër. Mm-hmm. mais jàpp mu yolam. xam nga kii boo ko bàyyi boo ko jàppee jàpp ba na mën a ci. voilà mm-hmm. mais boo jàppee boo loolu mbàyyi Sa Thiès am rotation ci biir circulaire. da ko waroon gën a jàpp. ànd ak moom ci kursam. Sa Thiès day daanu. mais dafa bàyyi bah, Sa Thiès dégagé wu. contrôlé ko dem dem contre attaque action coaction. muy lu am solo combat am na favori. Hmm? am na favori combat bi. non non man j'ai pas l'habitude de de favori parce que. Hmm. ñoom ñaar du convergence d'abord. Hmm. chacun ku su nekk bëgg na monter à un palier. donc da ngay jël atu yëpp def ko sa côté. pour boo daanee nga mën a dem parce que ñoom ñaar ñëpp ku su nekk dëkk na Bombardier. dëkk na Bombardier. waaw ku nekk bëggoon na bëri. Sa Thiès dëkk na Tapha Tine. Mhm. dëkk na euh, Eumeu Sène. Eumeu Sène Bombardier waaw. voilà mhm. dëkk na Eumeu Sène. Mhm. donc même bien avant sax bien avant seen combat bi. dëkk na ko fi. donc ñoom ñooñu dañuy am ambition. booy ñaan la ko indi. waaw c'est parce que dafa am ba bëri Lac de Guiers. ci biir VIP. dugg fa ndax Lac de Guiers. Lac de ba léegi bàyyiwul parce que am na dem jëli mais tey parce que dal na Sa Thiès mm-hmm. donc ki mënu ko bañ mm-hmm. donc mbër yi dañuy am ay li ñuy wax li ma sax rek il am ku lay jox ay orientation mm-hmm. ay conseil tegal la ay jalon pour yow sa graphique de de de cheminement le ce qu'on appelle le cheminement sa carrière nga mën ci àgg mais tey boo nee un favori euh, moi je dis l'habitude di cinquante cinquante parce que ils sont ambitieux. Mhm. mais ils sont dans la compétition ils sont jeunes. C'est des d'âge bariwul. Mhm. donc les techniciens, nañ ko Manenko, Kher. donc je crois que le jour du combat. Mhm. bien à quelques jours. c'est là là on peut dire à peine s'il y a un pourcentage. de l'un ou de l'autre MCS International, études et formations à l'étranger. Vous êtes élève du terminal, bachelier ou étudiant, obtenez votre admission dans les universités françaises, américaines ou canadiennes. Grâce à MCS International, vous bénéficierez d'un accompagnement et d'un suivi pour la réalisation de vos projets d'études supérieures à l'étranger. Contactez-nous vite au 33 868 69.

amaat na entraînement bi il faut mentalement ñëwaat na. ba pare jóge ci defet mhm. jóge ci bu tar mhm. bu tar. bu métti. Mhm. combat bu métti. combat bu métti. donc je crois que moom. wane nañu parcours am loo xam te ni vraiment bokkoon na ci ñi amoon ci sport lamb. mais carrière day toll foo xam te nii. day am haut et bas. donc mentalement na defarwaat. xam ne tout face dañ ko gëm. face dañ ko gëm. dañ ko gëm.

ndax du xaw a am tuuti ay gàllankoor ci keneen ki. non non mais nag yëpp lecture la. Mhm. dëgg mën sax dama na bëri action co action co action bu kii defee lii. Mhm. yow sa la koy génnee. bu kii defee lee yow sa la koy génnee. Mhm. donc ku si nekk rek lecture la ak par rapport ak consigne la sa coach yi jox. parce que coach yi aussi ñu xaaral lañu. jàng nañu xam ñoo xam lañ. ñoom aussi bu la jox consigne ñu jox consigne yoo xam ne tey. day tax nga am ci. ndam am ci ndam wala du la day tax yow nga am confiance nga xam ne lii kat su ma ko defee

am collaboration wax boobu mm-hmm. nga xaw a di di nga def fa tool nga rek ngeen co ngeen co coopéré. Mm-hmm. di coopéré mais coach est-ce que nii gënul. Mm-hmm. est-ce que nii gënul tactiquement est-ce que nii gënul parce que un un entraîneur. loolu la ñuy wax. tey entraîneur war ba yow sa adversaire noo ko gisee. parce que logiquement ñoom ñëpp dañu war a ñu visionné surtout léegi dafa yomb ak la technologie. dañu visionné seen seen adversaire. donc mbër bi am na nu mu jàngal. ci adversaire yow en tant que technicien am nga loo jàngat ci ci ci ci ci mbër mi ci mm-hmm. sa bos mm-hmm. ak ki nga war a bëril ban consigne nga koy jox mm-hmm. loo koy bëriloo loo koy bëril donc loolu yëpp di nga toll boo xam ne nag mooy l'autonomie l'autonomie ah amna naa trois avertissement waaw ki am na deux mm. temps bi mu ne naa tenter le tout pour le tout mm. ma daanu ak ma daanu ci trois contre deux avertissement benn la naa ko jëli Mhm. soit ma daan ko Moi, ma qu'on appelle le tout pour le tout Ça, deux phases moom le temps préparatoire à l'action mhm. temps bi may comme ni y wax mhm. ak tenter le tout pour le tout bien sûr donc waroo mën a xaar yow ba at bi ne pép pép yëkkati loxo yëkkati loxo non même disqualification ça. Mais si j'étais le CNG bu ñuy disqualifier tu peux te parce que bëriwul bëriwul bëriwul

il faut nga teey il faut nga dal. teey am lecture mën a xam nooy attaqué sa combat parce que Lac Rose ñu compite la. Mhm. avantage moom moom moom ak euh, Pape Ndoye. Pape Ndoye waaw boo woon jox mu. Lac Rose mu fit non du du sax. Mhm. non gaynde la. ni am bañkat la ko xam nit bu nekk bañkat mhm. boo ko dee rey sax mooy Lac Rose mais je crois que am na tey atout mhm. pour ñëwaat ci ci ama neex comme ama neex aussi am na atout euh, pour relancer waat carrière am parce que mbëri bari dañ koy daw dañ koy raw du bari dañ koy daw mhm. ñu bari boo nee ama neex ñu ne ko noonu et pourtant seen adversaire la ñoom ñëpp nañ bërandi dëgg la waaw avantage ama neex bëri ama neex du xeexkat

parce que nit ñi dañuy duñu lire biñu nit bind bi nit da ngay koy lire da koy lire taxawayam parce que diñu wax garde haute garde moyenne garde basse hmm at li mbeuri tout temps dañ ko war xoj ci seen abc wara jangal mais duñ ko xool duñ ko yi nga xamante ni dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salle de ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca marché police ba c'est numéro téléphone 33 820 39 95 alors 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul nag dani ubbi lundi au dimanche à demane ne kon nag boo bëggee ay dawal établissement Khadimou Rassoul ña nga nekk foofu ca parcelle marché police établissement Khadim Rassoul le